Covid bi bi mu amee président de la république dañé génné na 8 milliards 250 millions jox ko secteur du transport ñu sédélé ko ñu né secteur du taxi amna ci 450 millions. ci kaw loolu tok nañu lu mat un mois di làmbute di laaj fan lañuy ñun naka yan critère la ñuy ci xaalis bobu. Waxu nu ko après lañu génné ben plateforme ñu né ñu bi ngeen di dugg ngeen inscrire fofu. yaakaar naa communication bi ñëpp déggoon nañ ko bon ñun ñu jël suñu matukaay ak suñu temps yépp def ko ci def suñu inscription inscrit suñu nit ba mu àgg ñu toog deux mois après ñu soog ñoo nañu ne ñu léegi euh, inscription bi ngeen defoon da ngeen di andi ay documents physiques ubbil nañ leen benn bureau pour ngeen def ko ci ñun ñag ñu jàpp ne comme ñoom li ñu nar ci xaalis bi dëgg-dëgg waxuñu ko parce que yaakaar naa secteur yëpp jot nañ seen xaalis artistes yi jot nañ étrangers yi jot nañ donc ñun pourquoi ñun ñi nga xam ne ñooy yore taxi yi di dawal fii ministre bi taxaw en public ne dafa am problème identifier ñu ñun ci ño xamne ne yow ya leen jox carte grise jox leen licence jox leen agrément wala ba ko def say critère d'inscription ñu inscrire jox la nga ne mëno ñu identifier donc loolu lañ ne d'accorduñ ci té loolu dañ koy ñaawle parce que tâtonnement le ministre bi yoré ministère bi euh, lu jëm ci euh ki baangi ni euh place place assis yaa ngi suñu auto yi trois places ñu limité dañ ko d'accordoon parce que dañ ay mesures la yoo dañ ko jëloon pour Covid bi parce que ñëpp dañ ko généraliser woon ñëpp mais dem nañ ba benn moment ñu ne léegi may nañu transport an commun yi ñu yëpp plein léegi ñun pour pourquoi ñun suñu quatre places yi mënuñu ñu ko delloo parce que amul benn configuration bu bu ci am différence ñun sax boo xool ñoo gën a confortable euh, Ndiaga Ndiaye pourtant bàyyi nañ Ndiaga Ndiaye ñu yebaat donc loolu lañ ne tâtonnement la tâtonnement la boo xam ne ministre Omar Youm da ko yore ministère bi ak manque de communication bo xamné ni ak manque de considération bo xamné amna ko ci acteurs yi nga xamné ñoy yore transport